wa alaikum ma ngi nuyu ñepp di gërëm ñepp tay balu ak ñepp wa tay balu ak ci weer wu tedd wi nga xamni ci lañ nekk muy wëru tabaski ma ci balu ak ñepp di bal ak ñepp tay sante bu baaxa baaxa baax tay gërëm nag ñi nga xamni ñom la laa mouvement dolel Cheikh Abdou ndax suma nekk ci tabaski bi avant boog ñuy liggéey di liggéey ak Cheikh Abdou liggéey ba tey ñëw war na mën a toog sant militant yi nga xamee ni si ñoo nekk si sama ginnaaw ak militante yi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw di ñaan nag Cheikh Abdou di ko ñaanal gudd fan na ko wér liggéeyam bi nga xam ne moom la sumb yàlla na ko suñu borom dooleel te dooleel ñu ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci ginnaaw Cheikh Abdou yàlla suñu borom dimbale ko di gërëm Macky Sall tamit yàlla suñu borom dimbale ko ba deuxième mandat bi nga xam ni moom la bëgg te ñun ñëpp ñu bëggal yàlla na ko suñu borom dogal ñu falaat ko ko mu amaat ko te tamit suñu leader bi nga xam ne mooy seex abdu ñi ngi ñaan Macky Sall tàllal nañ la loxo ñun ñëpp ñuy militant yi nga jàppale Cheikh Abdou ndax mooy suñu leader ci tuubaa te gis nañ Cheikh Abdou engagement bi jël ci Touba kon ñun tamit bëgg nañ tàllal loxo yow Macky Sall nga jàppale Cheikh Abdou ci Touba te yàlla suñu borom mi nga xam ne moo am dimbal yàlla nañuy dimbale li nga xam ne moom la ñu bëgg ci suñu mouvement bi nga xam ne mooy dooleel Cheikh Abdou yàlla nañ fa yàlla suñu borom yóbbu fa ñu bëgg egg ñu egg ko fa. di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp dalal ñi nga xam ni ñooy ay gan yoo xam ne ñu ngi ci parti bi bokk ci dugg si ci ñoom ñëpp ñu ngi leen di dalal. Macky Sall moom tamit ñu ngi koy sant bu baax ndax gis nañ liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey na ko ci Touba. la Touba bi ku ne gis na ko barki démb bi muy ñëw Touba ci la jaar. te loolu lépp suñu ndimbal la ñun ñëpp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne muy chantier yi rek bëri na loo xam ne moom def na ko ci biir Touba kon yaakaar naa ne Macky Sall ñun waa Touba war nañ koo dooleel war nañ koo jàpp war nañ koo jàppale mu am deuxième mandat kon daal ñun Ami Diop mi ngi lancé ñëpp appel ñu jàppale Cheikh Abdou nekk ci ginnaawam di dooleel Macky Sall 2019 ñu gañ ñu Macky Sall gañe ko ñun nag tàllal nañ ko ñëpp loxo ñu ngi koy ñaan ñëpp. képp koo xam ne ay militant nga militante nga laaj nan la ci xalaat boo xamee ni si boo nañ tamit jàmmoo ndax jàmmoo ci la lépp xaj te yaakaar naa ne de suñu waxtaan suñu première waxtaan loolu ci la ñuy wax saa su ne ñu ngi wax ci jàmmoo ñun de ci jàmmoo la ñuy dox ndax man Ami Diop ci laa doon dox ki nga xam ne mooy sama leader de Cheikh Abdou ci lay dox kon yaakaar naa ne suñu ñëwee topp ci ginnaaw muy mouvement dooleel Cheikh Abdou Andak Ami Diop fokk na ne ñun dolel ko rek lañuy mëna def ta jàmmoo la mëna def kon yaakaar nañoo fekk ki nga xam ne muy Cheikh Abdou muy ko xam ne day bëgg jamm di dox ci jamm te jamm rek tax ko jóg ñun tamit ci loolu la dox ndax sa su ne ñi ngi bëgg jamm kon yaakaar na ni ki wut jamm ak kiñ fekk muy wut jamm suñu andé fokk na ni dana mëna nek. nekk. waaw di war rek comme ci nima ko waxé won ci bi fi président bi fi président di ñëw rek. 2 millions yi nga xam ni moo yaakaar naa moom la fi joxe woon damaa bëgg saa su ne su fekkente ne ñu ngi joxee te ñu seet na lañ koy séddalee ba kenn ku ne man cee am sa wàll am ci sa cër ndax yaakaar naa ne manque respect nit mënut a weesu nit di liggéey ci parti yaakaar naa ni nga taxaw sa morom ñëw ñu jox la loo xamee ni si dootoo xam noo xëy si nga gis ñu ko xam ne yeeyoon nañ ko war nañoo am seen wàll ca loola te mënuñ caa am ñun tamit nañu xoolaat ni nga xam ne noonu la ñuy taxawee suñu liggéey président su joxee tee xaalis ci biir fii nga xam ni mooy département bi nañ xam ñi ngi koy jox nañ xam niñ koy séddalee ndax foofa fa ci ne ña fa nekkoon man mii di wax man mii di wax nii fa nekkoon ak sama ñeneen militant yoo xam ne ña nga fa te dañoo dégg xaalis bi gisuñu ko kon su fekkente ni président Macky Sall ñëwati na biir Touba am lenn loo xam ne lu muy joxe te jigéen ñi moo tax ñu di ko joxe nañ ko séddale ci yoon nañ ko teg ci yoon ndax yàgg na Macky Sall yàgg na ñëw tuubaa président yàgg naa ñëw Touba di jox ay teraanga am na ci yoo xam ne mën nañ koo gis waaye am na ci yoo xam ne gusuñu ko buñ jox Macky Sall muy président su fekkente ni yëkkati na xaalis di ko joxe di ko may jigéen ñi nañ ko séddale séddale bu aw yoon séddale boo xamee ni si dañuy xam ñi nga xamee ni si ñoo ko moom ñu jox leen ko fekk ña cay am seen wàll ñu jox leen ko yow fi mu Sall day ñëw fii joxe ay teraangaam joxe xaalisam bay bëgg a dee nit ñi di wax joxewul dara pourtant Macky Sall mi ngi liggéey mi ngi liggéey ci département bi sonn trop di def ay chantier di fi joxe ay financement di fi def ay teraangaam kon teraanga yi nga xam ne moom la Macky Sall joxe fii ci biir Touba nañ ci jot suñu wàll nañ bàyyi su Macky Sall andi ay teraangaam kenn jël ko bëgg koo paacoo ci sa bopp déedéet nañ koy séddale wala ñu koy joxe nuñ ko war a mën a joxe séddale ko nuñ ko war a mën a séddale liggéey ci parti bi kon lu fi ti président andi ko fi nañ ko teg ci loxo yoo xam ne war nañ ko mën a séddale séddale bu jaar yoon kenn ku ne am ci sa wàll fii nga xam ne nii nag mooy gox bii nga xam ne mooy goxu jàkkay sañ mbay Ndiaye na ma ko waxee woon rek yaakaar naa ne ca verdi bu Mbàkke ba dinaa ko waxaat mënumaa tudd tur ndax su ma tuddee tur damay juum waaye sant naa ñëpp ci commencement bi sëneuse bi nga xam ne ñooy nekk si gox bi muy xale yu góor yi xale yu jigéen yi yaakaar naa ne suñu programme Mbàkke bi keroog ku fa tey wala nga teew fa wala nga ñëw yónnee fa wala nga xam wala nga ñëw seetaan ko da nga xam ni jàkkay sañ Mbay Njaay ay sonneuse moo ngi fi ñu dëggu ñu takk ñu ànd ñu nekk benn fas yéenee dooleel Macky Sall 2019 ñu falaat ko kon nag Macky sàll na xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci gox bii ak département bi nan xam ñooy kan ñu ngi koy jàppale bu baax xëy na nag Macky Sall moom Macky Macky moom mi ngi liggéey si dëkk bi moom président mi ngi fi liggéey bu baax xëy na nag ñi war a génn ak fësal lu ci ëpp ab liggéeyam moo fësul waaye daal ñaa ngi maa ngi ñaan ñi nga xamee ni si ño xamni liggey bi dañ ko tek ci seen loxo wala wàllu financement dañ ko tek seen loxo nañ ko jaar ci yoon tek ko ci yoon Macky Sall li wara liggey ci biir département bi mi ngi koy liggey li wara joxe nako ko joxe limi gëna nañ ko joxe ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di balu ak nak bal bal na ñepp ak na ma ñepp bal ak ndax balu àq munta weesu tabaski jot nga ñew du wër wu te wo xamni wër wu sel wër wu tedd nga tok li ma def ni tamit dama ko wara def diko def xëy na musuma koo def waaye li tax ma def ko maa ko xam ndax nee naa leen woon aw ma benn doole kenn rek mun ta dooleel boppam man dañ maa jàppale di ma puus. kon nag gàcce ngaalaa ma ñi nga xam ne ñoo may puus di jàppale muy département Mbacké ak jàkkee Serigne Mbaye Ndiaye di jeunesse bi nag di jigéen ñi di mag ñi di ndaw ñi wax dëgg yàlla Mbacké keroog ku fa teew di nga xam ne fii yaakaar naa ne ñu jàppale Ami Diop ñu ngi fi kon nag maa ngi balu ñëpp ak di sant ñëpp di gërëm ñëpp may sant nag. sama borom kër bi di mam gor samb sant naa ko bu baax cyant gi nak ma ngi ci jital magam ju gor tala samb mi nga xamni mo nek ci biir kër gi te yàqu ci dara nak bañ na ko ba day day genn jour bi nga xamni ci la wara lancer suñu mouvement bi dafa ñibisi ci biir kër gi nekk ko fi won waye dafa ñew ci kër gi amul xalé daf ne na ñepp dem di sant tamit ki nga xamni mo top ci magu mam gor samb bobu moy ku ñuy wax ma Demba samb tamit ma koy sant di gëreem bu baax ndax ñom ñepp ma jappalé amul ku ma wul ndax yaakaar naa ne ku seetaan suñu vidéo bi di nga ko gis Mbàkke keroog yaakaar naa ne bi ñu koy caméra moom moo ci gën a fés kon nag yaakaar naa ni ñoom jàppale nañ ma dooleel nañ ma sam sam sama boroom kër bii di Saliwu Samb tamit maam Góor Samb lañ koy wooye waaye Saliwu lañ koy wax maa ngi koy sant bu baax dooleel na ma dimbali na ma yërëm na ma yiir na ma suturaal na ma te moo ma wan yoon wi nag su ni ma woon bul politique tey du ma politique de ña gis nga fi toll ñàkkuma kilifa de ak maa am kilifa su ni ma woon bàyyil tey rek damay bàyyi waaye nag sant naa ko sàmb Samb jëf maa ngi koy sant di gërëm yàlla na ko yàlla suñu borom guddal aw fanam wéral ay cëram ak